waaw comme ni ñu koy defee euh, saa waxtu wi jotee rek dañ leen di amal round-up de l'actualité de la semaine comme ni ñu koy defee ajjuma gu jot tey la ajjuma nag leen di wax ba noppi juma mu mubarak di leen ñaanal fépp fu ngeen mënta nekk ci réew mi ak ci bitim réew waaye di rafetlu saa su nekk seen ànd ak ñun ak suñuy programme laataa ñoo door nag euh, waxtaan wi dañuy daal di euh, nuyu ñi ma feggoog plateau bi comme d'habitude nag les vendredis sama chroniqueur ñi ma gunge ci édition du di Doudou Coulibaly Doudou maa ngi lay nuyu ay maa lay fay maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre actuellement ci plateforme Walfadjri yi mhm. di dama économiser woon yóbbal bee mhm. paase moo tax dama koy def ñaar ñaari yóbbal euh, bu njëkk mooy dama man dama yaakaar ni ñun dañoo am benn presse boo xam ne presse bi soit dañoo amul xam-xam mhm. walla xamuñu xaalis ndax maa gis tey jii plus de huit quotidiens génn titré te di ko ndamoo ndam bu ngand ni euh, le premier ministre Amadou Ba daa dem France àndaale cent milliards yow réew muy dunde quatre mille six cent milliards bu la France joxe cent milliards loolu lan la par rapport ak yow li yow sa réew li mu mun produire. Mm. ak yow li nga mun def tey jii normalement. Euh, am na ay secteurs yoo xam ne yu ndawa a ndaw mhm. yoo xam ne dañuy produire cent milliards pour le Sénégal ñuy exulter si mbir moomu mhm. naan ay premier ministre revient avec cent milliards bu France mhm. alors que la France nous a un siècle de colonisation ak un siècle d'esclavage effectivement donc yooyu ñu war ko man dama xamul ñun suñu presse bi est-ce que presse bu mot presse la nga war a jël ay combat di ko teg mais ñun on se fii si yenn affaire sew yi di yëkkati ay yoo xam ne boo xoolee bu baax. Mhm. information sax amu fa. Mhm. beneen bi beneen bi ma ne président de la république Macky Sall liggéey mooy assurer ngoru nit groupe des médias li ñuy dund actuellement métti na. Mhm. te teguñu ko fenn Pape Alé jël nga tëj. yenn groupe de presse yi pendant des années pandant douze ans persécuté ngeen leen ñu bëri daanu nañ organe de presse yu bëri génnatuñ des médias commencé di tabax di tabax ba am tey jii plus de cinq cent employés nga yeewu suba teel nekk cinq cent employés yooyu dañuy dem tëddi seen kër dañuy dem chômage ji tey bu dul woon lenn sax mais rien que pour sauvegarder ay emploi war nga leen bàyyi tout tranquillement ma la koy ñaan encore une fois ñu xam ni àdduna aucun pouvoir ne éternel seul le pouvoir de jë est éternel loolu laa amoon pour yóbbal mu nga koy léegi mu nga jërëjëf euh, Doudou Coulibaly ñuy xaar bu baax baax tout temps les yóbbal du vendredi Doudou Coulibaly ci édition du soir xammee ngeen ko chaque mu indi xibaar bés ñaari bi nga xam ne ñun ñëpp ci da nga waxtaan ak ñoom ñu ngi fi également ci plateau bi ak doyen Mademba Ramata Dia moom itamit kenn dootu ko présenté ci Walfadjri mais nekk également euh, euh, rédacteur en chef bu journal bi la di direct news euh, Mademba Ramata Dia maa ngi lay nuyu. waaw Aïcha maa ngi lay fay bon bu ma la nuyoo ba pare di nuyoo mbokk téléspectateur Walfadjri ak ñëpp ñu nekk seen plateforme yi. alors ñu ngi fii tamit euh, ak suñu beneen natango ji euh, Abdoulaye Diop moom nekk euh, directeur de publication bu journal bi di 24 heures moom itamit dootuñu ku ñu koy présenté ci Walf monsieur Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. jërëjëf soxna Aïcha maa ngi lay delloo nuyoo bi. di nuyu kilifa kër gi yëpp. di nuyu sama ñaari doyen yi ma fegool Demba Ramata ak Doudi Coulibaly yi <laughs> di nuyu téléspectateurs ak euh, téléspectatrices yu Walfadjri yëpp. alors c'est un vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau regroupé ñun ñëpp daañu waxtaanee ay ponk yu mel ni mbiru euh, affaire à Pape Alé dinañu waxtaanee tamit lu jëm ci euh, ci a tiré comme li nga xamante ni moom mooy la xew ci assemblée nationale ak mbiru Amy Ndiaye ñii bi plainte yi nga xam ne tukkee na ci ba ci ay plainte yu yees yoo xam ne dañu ko waxtaanee xëy na ci plateau bi waxtaanee tension ñu nemmeeku ginnaaw activiste yi ginnaaw politique yi dem ni dem na ba opposants yi tamit ñu ngi ciy jot seen seen wàll d'où l'arrestation de ki nga xam ne euh, euh, euh, boy bu mujj bi di rek Fadjilou Keita bu ci xajee tamit lañu waxtaanee élimination gaynde yi ci coupe du monde Qatar 2022 lan lañ ci mën a tirer ay comme ay conséquences loolu ñu fas yéene waxtaan léegi-léegi mais dañu koy dooree ak mbirup affaire Pape Alé Niang Doudou Coulibaly tey jii euh, euh, journaliste bi euh, jàkkaarloo nag doyan deuxième nu ñu koy waxatee juge du deuxième cabinet ngir laaj ak tontox seen diggante ca lañu ko ca lañu ko téye waaye ndax au delà de saa mën nañu xalaat ne ki nga xam ne mu taskatu xibaar war na mën a bénéficier wu d'une liberté provisoire. waaw xam nga c'est malheureux ñun jàppoon nañ ni ñu ñu gën a bëri si ñoom. mi war wo mbir mi mënul war jaroon na bañ a mënoon na bañ yegg fii parce que euh, Pape Alé ñu ngi ko jàpp comme un grand terroriste quelqu'un boo xam ne dafa yoroon bombe di ko waaja a éclaté lu tax ma wax loolu mooy il n'a pas été arrêté chez lui à son domicile et il a été arrêté un dimanche xam nga boo demee jàpp nit dimanche fekk ko fa muy defaree ay pneu mooy y avait urgence à partir du moment où il y urgence mooy tu as réuni toutes les preuves pour que kii bu ñëwee rek nga daaj ko mandat de dépôt ay affaire am kon warul yéex y tous les éléments yoo xam ne yow da ngay ñëw rek nga emballé Pape Alé Niang a fait trois jours entre le parquet et les retours de parquet trois jours xam nga entre le parquet et les retour de parquet si ko jàpp presque li ñuy woy ci flagrant délit mooy tu en train encore de chercher ñu ñëw ñu jox ñu un communique laconique tey ba léegi ba tey jii ni nit ñi mënuñoo d'accord sur les chefs d'inculpation de de Pape Alé Niang tantôt ñu la lii la tantôt ñu ne la ba mu demee ba mu nekkee entre les mais de la police ñuy def les enquêtes préliminaire ñi nee nañu ci rapport gendarmerie bi ba léegi posé wuñ ko ci question ñu yeewu suba teel na la euh, ci mbirum étage bi mu waxoon kii moo ko moom ak kii moo ba léegi posé wuñ ko ci question hmm. xawma tey ci doyen des juges bi lan la ko laaj mais bu dee ni dañ ko laaj yow rapport bi foo ko jëlee il faut pas qu'ils perdent leur temps ñun dañ ñoo tàggat si source moo tax ñuy liggéey mm-hmm. et que tant que les sources ont confiance au journalistes le journaliste va avoir de l'information le jour où aucune source nora la garantie d'être protégée kenn dootul joxe ci source ñu ne la booy dee sous la torture ak ak lépp lu ñu la munti def sa source bul fexe mukk ba dévoiler ko sauf ko da nga jàpp ni il t'a manipulé maanaam il t'a donné de fausses informations foofu rek. Mhm. lañ la ne nga joxe sa tour source. effectivement mais kon ça veut dire que yow ñu la tàggat xam nga policier bi ñuy bi may bi may déglu man dama koy wax yow dañ la tàggat si benn code d'honneur boo dul wàcc. Mhm. le juge. Mhm. ñu tàggat ko si benn code d'honneur bu muy wàcc. pourquoi ñoom ñëpp ñu am code d'honneur boo xam duñu ko wàcc boo waxee ñu ne les ordres c'est les ordres. ñun ñu tàggat ñu ci benn code d'honneur mm-hmm. à travers la protection des sources ñu ne ñu génnee loolu kon dañuy perdre seen temps parce que du ko def du ko du ko a euh, euh, doya Mademba Ramata li ñu gis tey moom mooy li dessiné wu moom mooy tey bu fekkente ne si toutefois euh, procureur bi nanguwul ko jox li nga xam ne mooy liberté provisoire est-ce que li waru mën a nekk benn source de problème ci diggante presse national ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di le pouvoir. en tout cas tey dem na audition juge bi déglu ko no waxtaan nag moom léegi bi maître Clédor Ciré di jëpp génnee dafa ne moom Pape ale daf ko impressionné mhm, impressionné par rapport à sa sérénité ak par rapport aussi argumentaire bi mu doon jox. nee na sax dem na ba il avait dem na ba ne sax parce qu'il pouvait soxlawul avocat. Mhm. léegi nag par rapport à Pape Alé kii du ma ñëwaat ci conditions yi nga xam ne moom lañ ko jëlee. mais boo interroger histoire ou gouvernance su Macky Sall depuis 2012 dafa am ñaari mbir yoo xam ne dafa lompoñ maanaam dafa paralysé mm. maanaam la liberté de la presse ak la liberté d'expression ci sunum réew dafa nërmeelu mm. li la koy gën firne sax mooy natt yi ñuy def classement mondiale bi mm. bi ñu mujjee def Sénégal en deux mille vingt et un il était classé quarante neuvième parmi les pays yi nga xam ne ñoo gën a dellu ginnaaw ci wàllu liberté de presse en deux mille vingt deux le Sénégal est classé soixante treizième ça def na bon en arrière dollu na ginnaaw quarante six vingt vingt six vingt nangam point vingt quatre point xom donc ça veut que côté boobu ñu ngi régressé. Mm. boo xoolee aussi ci wàllu journaliste yi ñu ci jàpp. wala ñu am ak problème ak euh, gouvernance su Macky Sall observateur daloon même des médias gii ñu am problème te amoon na benn jamono dañ reprendre benn article Le Monde dañ leen woowoon doon leen sonnal du Seck aussi bu observateur par rapport à article bi mu bindoon deux mille cent soldats yi ñu yóbboon Arabie Saoudite port Yémen yooyu moom tamit sonnaloon nañ ko ainsi de suite bon donc ça dire que les relations entre la presse et le pouvoir actuel son souvent des relation heurtées. Mm-hmm. parce que ñoom dañoo jàpp ne xam nga boo bu la presse indee pouvoir wala tu t'es sur la presse pour ñëw pouvoir da ngay bàyyi xel toujours presse. Mm -hmm. tu une peur bleue contre la presse donc da ngay fexe ñi nga xam ne mën nga leen jël ñu nekk sa nga jël leen ñeneen ñi nga xam ne ils sont dans position boo xam ne arrangé wul ngeen donc mm-hmm. depuis lors gis nañ ne. benn offensive la ñu mëne kon la presse léegi mhm. nag li ci war mooy. mais mais mais loolu mais mais doyen ban gué politique la la la ci la ci la ci la ci peut-être état bi mën a am. di emprisonner ay ay ay ay ay ay journalistes. lan lañ ci mën a état bi xam xam lu mu bëgg. en réalité day bëgg a museler ñëpp ñëpp xool même direction wala loolu loolu moo ko intéressé en tant que état. Mm. te aussi muy mën a manipuler opinion bi. parce chaque fois l'État et confronté à une d'opinion et communication bataille boobu nag da koy bëgg a gañe boo koy gañe nag day am ñu lay jàppale ci côté boobu loolu moo tax mu gi léegi nag bu la gisee na récalcitrant nga wala kii mhm. il peut user de la force wala di la jéem a intimider ak yooyu mhm. mais ni ko Rousseau wax rek moo li Rousseau wax moo am solo il n'y a aucune gloire à utiliser la force qu'on a entre Mhm. Abdoulaye Diop Abdoulaye est-ce que euh, euh, au vu de tout ça mën nañu am yaakaar ne que euh, Pape Alé Niang sera libéré quand waaw loolu de lañuy ñaan soxna Aïcha ginnaaw bi ñu ko masowoo masowu njabootam ak njabootu presse gépp mhm. euh, dañu nekk ci situation boo xam ne ni ko sama ñaari doyen yi waxee mhm. dafa xaw a complexe parce que man j'ai l'impression que les acteurs de la presse maanaam dañ leen di tirer vers un contexte anxiogène fi mu toll nii tout le monde et anxieux au mm-hmm. niveau des acteurs de la presse mm-hmm. bu ñu ko waxee bu ko waxul c'est ça la réalité euh, parce que le fait euh, d'abattre la liberté d'expression wala le fait d'abattre la liberté de presse mm-hmm. dafay installer les acteurs dans une situation anxieuse maanaam ñoom ñëpp seen xel dalatul parce que Euh, ni ko doyen waxee euh, ñi ñu fi tëj seen kërug liggéeyukaay. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, journalistes yi ñu fi jàpp. Mm-hmm. ak pression bi nga xam ne nii ñu ngi koy exercer ci ñoom. au-delà la vie des entreprises de presse. yi nga xam ne nii dañoo confronté wu à des situations yoo xam ne nii mm. euh, ni publicité euh, ni support de l'État ni accompagnement de l'État loolu daf ñuy tirer vers une situation anxiogène mm mais au-delà de cela dama jàpp ne il faut avoir une lecture politique froide de cette situation mm situation bi ñu toll mooy que ne nous allons vers une présidentielle vers une élection majeure en 2024 mm -hmm. alors lan mooy intérêt pouvoir bi intérêt pouvoir bi c'est de faire tout ba nga xam ne toute information wala toute communication susceptible d'orienter le choix des populations dañ ciy teg seen tànk du ñu bëgg mu génn moi je pense que c'est ce qui a amené toute cette cacophonie cette peur comme ni ko ni ko doyen waxee l'enjeu c'est c'est 2024 mmh. et xam nga ne euh, Pape Alé il est dans son rôle parce que quand une information est fondée dans la quête de la vérité cette mm. information dafay rassembler Tout mais de l'autre côté li ñuy bëgg mooy am une information boo xam ne c'est fondé sur le contrôle et c'est fondé sur l'influence mmh. pour que ñoom ñu taxañ jëmale seen wet c'est ça l'information contrôlée et l'information d'influence mmh. malheureusement au Sénégal y a des journalistes yoo xam ne nii ils sont dans le premier niveau. Mhm. ils sont dans l'information fondée sur la quête de la vérité. Mhm. pour rassembler les gens mais également pour protéger l'ordre social. Mhm. mais malheureusement am na ay businessman yoo xam ne ça mais mais enjeu bi. en fait c'est ça il y a un enjeu électoral il faut tout faire pour freiner tous les journalistes qui sont dans la dimension. d'une quête d'information, de vérité mm. à donner à l'opinion, aux populations et qui peut interférer sur leur choix dans une élection majeure. Mm. Deuxième aspect bi mooy contre pouvoir bi nga xam ne en général le pouvoir dina ko jéem a jouer mooy c'est d'essayer d'avoir une presse boo xam ne mhm. li muy joxe mhm. mooy une information de contrôle et une information d'influence kon il faut avoir une lecture politique de cette affaire mhm. parce que li ñu mën a jàpp mooy euh, li sax sax ma gën a wax anxiosité boobu quand on entend un ministre de la République dire que Pape Alé n'a pas une carte de presse c'est un élément révélateur. Mhm. parce que Pape Alé gisuma ci àdduna ku ko mën a génnee. ci ci presse bi. Mhm. ku ko mën a génnee ci statut journaliste boobu mu am. Mhm. donc ça veut dire que. gis nga set communication anxieuse bi nga xam ne nii ñi ngi ñuy tirer vers cela. donc wala beaucoup de choses. tey Pape Alé est dans son rôle hier il était dans son rôle. quel était son rôle mooy que dafa taxawoon ci taxawaayu garde foo boo xam ne. c'était pour protéger l'ordre social parce que fi mu dugg ak dossier yi ñuy wax ne ba léegi li duud wax xamuñu sax luñ koy toppee au au parce que ñu jàpp ñu bari dañ jàpp ne c'est rapport de la gendarmerie mhm. tey ñu ngi lay wax c'est des informations yoo xam ne nii c'est militaire waru ko woon génnee wala nangam nangam waaw loolu yëpp nag euh, dafay wane que ne mhm. l'enjeu c'est d'orienter mhm. le choix de l'électeur en 2024 moo tax ñu am toute cette cacophonie au au niveau de la presse en l'attaquant et au niveau d'autres institutions de la République. alors kenn ki nga xam ne sax révélé woon euh, comme étant euh, candidat ci élection 2024 ndax nga 2024 muy Ousmane Sonko moom instant bi dafa am problème ak justice li ko waral moom mooy nekk euh, Adji Sarr da ko porter plainte d'où l'importance de dugg ci deuxième sujet bi plainte bi nag dem na ba ci confrontation protagoniste tey loolu am barki Dembo Ndiaye Doudou bi nga gisee confrontation bi am journée la bu ñuy xaar lenn génn fa est-ce que amoo mbetteel un peu ñaari at ñuy xaar lii la ñu jox. waaw confrontation bi xam nga dafa naroon leeral. mu gën a lëndëmal. lu tax mu gën a lëndëmal mooy dafa am ñetti protagoniste. Mhm. ñoom ku si nekk danga génn am loo wax dañoo dem bureau doyen des juges ba ñu génnee bureau doyen des juges presque bi wax presque ku nekk de différentes manières man dama ne est-ce que on était dans un même pays avec les mêmes faits parce que bu fekkee ñii dañoo bind charge ñii dañoo bind décharge ñii bind ne Ousmane Sonko xaw na fa dee ñii ne Adji Sarr xaw na fa dee ñii ne usman <laughs> Sonko am na ndam ñii ne Adji Sarr am na ndam. am il fallait s'y attendre na. donc <laughs> presse bi leerul. Hmm. Ousmane Sonko def conférence de presse wax. déclaration boo déggee déclaration de presse am da ngay ne Adji Sarr est terre nee na. Adji Sarr lii ak lii bi ñu ko laajee dem na sax ba ne avocat bi yow Pastef nga bokk dootuma la tontu ah Adji Sarr génn moom it def déclaration dindi li Ousmane Sonko mhm. wax yépp mhm. mais xam nga loolu lan la ñuy war a fan la ñu war a yóbbu le plus rapidement possible doyen des juges nag mhm. bu mu tardeel sénégalais gis nga dans cette affaire la y' a plus rien à auditionner. Hmm. y' a plus rien à savoir gis nga dossier bi pare na. Adji Sarr soutenir na li muy wax Sonko soutenir na la contraire ñoom ñaar ku si ne nee nga procès nga bugg pour la manifestation de la vérité nañu juge bi le doyen des juges dimbali li lay war a sóoli le plus rapidement possible ñu ubbi procès. Adji Sarr Ousmane Sonko xam nga lu tax. dama bëgg c'est que sénégalais yi dañuy ñuy calculer ñun dañuy ce qui s'est passé ici la lundi lan la woon convocation pour confrontation tous les jours ci bureau du juge au moins plus de cent sénégalais dañuy dem confrontation. mais une confrontation coûte une centaine de millions mais confrontation boobu bu yàggee am. mais réew mi dina ruiner. Mhm. xam nga lan moo andi coût centaine de millions. Mhm. yéen da yaakaar ni gendarme yi ak policiers yi dañ leen di mobiliser partout au Sénégal ñu sol ay tenues def nii nekk seen oto yi ngeen yaakaar ni loolu amul coût. Mhm. boo boolee la mobilisation des forces de police de gendarmerie et de renseignement ci wàllu lekk essence ak prime c'est au moins d'après mais calcule ak. Euh, que réflexion bi ma def ak enquête yi ma def au moins une centaine de million par jour waxuma la lakk lacrymogène bu tàkkoon nag xam nga bii lacrymogène tàkkul ñoom dañoo génn rek mais génn bu nekk il paraît que daa am prix mu añ mhm. prix mu reer prix mu ndékki dañu xam ñaata jour la ñu def mobilisation bi essence yi day tàkk parce que loolu ba doon dote ba doon dote benn caserne de mille litres de carburant au moins benn jour di nga si yokkaat deux cent deux cent mille litres deux cent litres de carburant. Mm. dama joxe noonu ay exemple rek. bu fekkoon mille litre ngay kii su amoon cinq cinq manifestation bu nekk di nga ko multiplier par deux cent litres muy beneen mille litres. Mm-hmm. cinq manifestation rek ak wala ay marches yu mel noonu kon ça veut dire que lii dafa am coût. Mm-hmm. mais est-ce que ñun mun nañ continuer di supporter ce coût là. parce que pour une simple convocation mais pourquoi Ousmane Sonko ñu convoqué ko il n'a fait aucune déclaration de mobilisation mm-hmm. ne nit ñi toog leen fi ngeen toog mm-hmm. mu mel ni guerre am ci réew mi ba pare l'activité économique léegi léegi ñu bëri ñoo xam ne ñoo moom seen yëf mm-hmm. ñoo moom seen yëf suñu woyetee woo nañ Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom il préfère tëj seen activité économique transporteurs yi di jooy borom école yi di jooy keneen ak keneen di jooy parce que tout simplement y a une convocation kon du gaaw. du gaaw bu gaawee rek régler problème dafa war a gaaw loolu Doudou Coulibaly wax mais euh, doyen. Mm-hmm. ñu gis ni que euh, tey jii au vu de ces accusations là euh, de part et d' autre comme Ousmane Sonko comme Adji Sarr ku ci nekk yaa ngi accuse sa morom te terewul ku ci génn audition rek daal di tàllal sa micro di wax. loolu est-ce que est-ce que yoon la te loolu bu continuer est-ce que dinañu am vérité bi une bonne fois pour tous. sénégalais xaar nañ li walla. ce pro ce, ce, affaire-là est victime d'une surmédiatisation ñu mm -hmm. ko médiatiser le fëpp gis nga confrontation d'un juge ça entre dans le processus normal du du d'une affaire judiciaire egguñu fenn instruction lañ nekk bu mënoon nañ ko sax bañ a yëg mm-hmm. ñu woo leen ñoom ñëpp mais malheureusement dañoo nekk réew moo xam ne on aime les on aime les gaffes dañoo dem ba mujj gi réew moo xam ne nettali rek lañu yàkkamti. léegi nag da ngay dem ba mujj gi ñi war a wax. est-ce que du du simplement que aussi c'est c'est Ousmane Sonko. non waaw d'accord c'est Ousmane Sonko. Oui. mais am na nu ñu ko doon gérer depuis le début. mais dañ ko médiatiser bu mu ëpp. boole ko aussi politiciens aussi dañuy def erreur. saa ñu fàttee mbiru Ousmane Sonko ñoom ñoom ñoo koy indiwaat suñu xel. Mhm. ku taxaw au da gis ku nekk assemblée nationale au lieu nga wax lu am fulla wala lu ëpp fay bien vrai c' est une affaire de mœurs donc am na fulla mais nag nga ñëw il y a tellement de problèmes en dehors. de de problème de. Sonko ak kon su ma déggee baax doyen est-ce du du un peu l'affaire ba tax na même bu ñu ko fàtte woon sax dinañ ko fàttali à tout moment ci plateau de télévision yi même. dafa am ay relents de politique. Mhm. pour l'homme qui qui est Ousmane Sonko ce qui représente dans ce pays pour l'homme aussi ki est un adversaire sérieux pour le régime en place. loolu la te loolu mooy loolu mooy problème bi léegi nag ñoom aussi dañ koy bëgg a déstabiliser. Mhm. boo boo juste à un certain niveau loolu indi yëpp médi sur médiatisation ku nekk di wax mais gis nga nit lu mu gàtt gàtt xel bu layee mu jub boo déggee Adji Sarr bu waxee nga ne Adji Sarr gongo mm-hmm. nga déglu Ousmane Sonko mu wax nga ne gongo mais ñun loolu intéressé bi ñu xam lan moo ñu intéressé mm-hmm. mooy juge bi régler problème parce que on ne peut pas dans un pays mu am benn affaire bu xew xewoon ci benn salon ba def ay ramification ba am 14 morts ak des dégâts économique am ñoo xam ne perte nañ seen an seen liggéey am ñoo xam ne perte nañu seen xaalis ñi seen i bien ñu bàyyi ko perte de profit yooyu il faut ñu régler ko man je crois que mhm. foofu la combat juge bi war a nekk fexe ba loolu leer et puis qu'il y ait mhm. mu ñu toog depuis mars ka mars deux mille vingt et un quatorze morts sans coupable loolu mënta am mhm. surtout ñuy wax ñun dañoo am force de l'ordre yu xarañ. seen xarañte kay nañ ko wane fii. effectivement nañ ko wane fii Ablaye Diop euh, euh, li ñu bëgg a euh, leeral mooy peut-être la question que tout le monde se mooy est-ce que un jour dinañu xam lan moo xew Sweet Beauty. avec tout ça ñëpp di porter presse kii di wax fii kii di wax fii juge yi sa boo xam leeraluñu waxaguñu dañuy ubbi procès ou pas waxaguñu noonu lee day am ou ñu teg ci sénégalais benn gàmm boo xamante ni fi mu ne nii c'est inexplicable. lan mhm. la ñu war a mën a def pour mën a éradiquer carrément ce dossier là jàll ci leneen. waaw soxna Aïcha man jàpp naa ni dossier bi c'est devenu une affaire d'état loolu euh, mooy mooy li am. Mm. parce que une affaire privée boo xam ne nii euh, suuxat nañ ko suuxat ko ba mu dugg dans la conscience collective. Mm-hmm. de manière extraordinaire c'est-à-dire tey euh, boo xoolee depuis depuis deux mille vingt et ba tey boo càmbaree la presse presse bi yëpp. Euh, le pourcentage bi information Adji Sarr Ousmane Sonko am dans l'actualité mm. euh, dafa dafa dafa bari mm. et c'est normal parce que euh, ki mu impliqué moo tax il implique euh, presque euh, l'adversaire le plus coriace mm du chef de l'État du président de la République mm -hmm. bi mu demee nag ba nekk une affaire d'État également ça devient compliqué parce que ñi ngi ciy cité di leen tuddu mm. ay nit lañu ñoo xam ne maanaam dañoo am taxawaay ci kënug réew bi ci ci ci ci ponk yi gën a am solo ci réew mi. Mm. muy la justice et nos forces de défense et de sécurité. donc c'est devenu c'est devenu gravement une une une affaire d'État mais li ci am mooy euh, nit ñi dañu ubbi seen bët di déglu ak seeni nopp maanaam tey ku ci wax. dinañ mën a xam la part des vérités de ce que vous avez avancé. Mm-hmm. te comme affaire u justice la affaire u viol la dafa am ay ponk yoo xam ne en fait mooy may nit ki ak spécialistes yi ñu mm-hmm. xam ne lii vraiment c'est la véracité maanaam dëgg la wala du dëgg mm-hmm. y a des preuves scientifiques qui ont été produites y a des enquêtes qui été menées par des professionnels ñoom ñëpp dégg nañ liñ ci wax maintenant c'est le temps du juge d'instruction ci jamono jooju lañ nekk il est libre euh, dérouler son agenda comme il veut. ku mu neex mu déglu ko euh, ku mu neex lu ko neex la lay laaj il est dans son rôle mais fii réew mi toll actuellement. Mm. Euh, cette affaire est devenue euh, li may tuddee une pulsion de vie politique et une pulsion de mort politique. Mmh. C'est une pulsion de vie politique et de mort politique aussi bien pour le président Macky Sall et sa famille politique. et pour Ousmane Sonko et l'opposition moo tax mu mu compliqué mu doy waar mhm. te comme état bi si suñu réew yi ni ñu tàmmee di utiliser les institutions de la République pour di ko dal ci kaw nit tey dafa mel ni y un frein par rapport à cette démarche avec l'opposant Ousmane Sonko parce que euh, dafay mel ni lu ñu lal rek mhm. mu lalli ko mu teggi ko ba pare sur le plan de la communication il indexe c'est-à-dire il indexe des gens de haute autorité yoo xam ne bon da ngay dem ba xam ne lii c'est une affaire d'état boo xam ne la justice nag moo ci war a mën a génnee réew mi parce mhm. que réew mi dafa nekk ci diggante bu xat boo xam ne nii mhm. la justice qui fait l'économie qui fait fonctionner les institutions qui fait fonctionner la la société et l'ordre social tey fi mu toll nii moom la yëfi gàlloo ci ay mbaggam mhm. il y a un défi pour tous les magistrats du pays voilà il a un euh, euh, défi euh, voilà pour la justice avec un grand J yoo xam ne mi ngi gàllu ci kaw mbaggu doyen des juges Maham Diallo léegi nag mhm. njàng moom ci Sénégal ñëpp ko def mhm. xam-xam du ñun rek a ko am mhm. du juge rek ñoo ko am du expert en santé yi rek ñoo ko am y a des choses qui été produites mm-hmm. yoo xam ne pour une grande partie de l'opinion ñu ci bëri ils ont fait leur religion de cette affaire mm-hmm. toog di xaar léegi nag maa xam on le taxe d'un juge qui est très sérieux mm-hmm. ku jullite ku gëm yàlla loolee yëpp nag wala ñu ko tënk di ko defub say nañu xam fan la wànnanti di mujjee ki gëtam wéyteen si ñu xaarandigum fan la wànnanti di mujjee ki gëtam ci diggante Adji Sarr Ousmane ko ci noonu sax la ñuy jàllaatee jóge ci pouvoir judiciaire bi dem ci pouvoir législatif mm-hmm. assemblée nationale la ñuy jubali coow la nga xam ne am na fa ñaari ayu bés ñu koy waxtaanee gannaaw bi euh, euh, député yi yeewi ñaar ci ñoom daal di rek euh, dóor ki nga xam ne moom moo di Amy Ndiaye ñibbi nekk député bu bu Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar indi na fi coow nag ba ay plainte jub sax euh, tey ay dé yeneen déclaration yi tamit génnaat mënuñ ci jaar parce que on en a parlé plusieurs fois mais plainte yu yees yi nga xam ne tey jii ay euh, avocat wu ñaari député yi nga xam ne ñu leen topp mu ni ñetti plainte yoo xam ne déposé nañu ko duudu ñaari pour Ami Ndiaye ñii bi la benn bi pour Moustapha Diakhaté ndax kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko di inciter à ce ñu faat ay député su fekkente ne bañ nañu wuyu ji à la convocation naka nga ko jàngatee. l'affaire Ami Ami Ndiaye ñii bi du ñu dellu si waat sur les sur les faits. Mhm, mhm. man dama bëggu réew su dee benn affaire am na ba pare ñu xool nan la ñuy moytandikoo mu bañ amati. xam nga les faits am na ba pare Ami ñii bi gars yi agressé nañ ko moom tontu na lii loolu am na. kenn mënutul def ralenti. mais plus jamais waaw kenn mënul def ralenti ba loolu dootul amati kon am na. mais noonu la ñuy def ba dootul am parce que li mu mun andi conséquences yi mu mun andi mooy bii benn góor walla ñaari góor ñoo dal ci benn jigéen mais bu ñu taxawee quatre-vingt ak quatre-vingt war a taxaw di dóorante ay chaise ah ak di tiirante ay fetel ci biir hémicycle bi mun nañ fa yegg mm-hmm. mais nan lañ war a def pour loolu bañ amati mais li tax loolu mun a bañ a amati ak li fi amoon ak li fi amaatoon mooy le respect scrupuleux du règlement intérieur de l'Assemblée nationale gis nga dañu ne Assemblée nationale député bi dafa am sañ sañ wax ñu ne ñaari temps de parole mu temps de parole limité ak temps de parole illimité ñu ne tey ah ak xool bi ni xoolee affaire yi bii trois minutes la am benn jour boo xam ni comme si yenn question yi ay question de procédure ñu ne la le temps n'est pas limité mhm. ñu ne waaye député bi nga xam ne moo yore parole du président assemblée nationale du ministre bi ñu invité assemblée nationale du beneen député comme moom moo am sañ-sañu di ko dagg ñu ne kon léegi député bi am parole nañ ko jox cëram mu wax te kenn du ko bi ñu ne kuy perturber wala comme par exemple ku tempsam jeex xam nga sa temps bu jeexee day ne pin pin pin mhm. soo bañee mhm. acte d'indiscipline la loo xam ne règlement bi am na lu mu si wax mhm. mooy mun nañ la génnee salle bi mun nañ la suspendre vingt quatre heures li xew assemblée mooy le le le vrai président de l'Assemblée nationale vrai président groupe parlementaire bi muy Farba dégg nga wax ju baax ah ma ne le vrai président de l'Assemblée nationale ak le vrai président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar Farba Ngom dafa am ay femmes yu ko wër ah mais ñun Amadou Mame Diop lañ xam mu nekk président assemblée nationale dama ne le vrai laa la wax dafa am koo xam ne dafa tax ñu rek koy woowe président mais le vrai président mooy Farba Ngom parce que ki xam ne mooy décider nu muy demee assemblée bi nu muy demee su buggee séance jeex jeex su fekkee séance ñu perturber ko su fekkee bu bugg séance nekk jàmm mu am jàmm kon koo koy vrai président bi mm-hmm. léegi Farba Ngom moom la ñuy wax ak groupe boobu ku perturber ci mm-hmm. ak opposition ku daggati nit na la président bi génne bu la génnewee boo dellu si waatee si dans les heures qui viennent nga kii ñu aj la vingt quatre heures mais loolu bu ñu ko defee yemal si ñëpp nag gis président bi toog. Mhm. na si yemale ñëpp bu ñuy wax normalement waruñu sa dégg une mouche volée loolu bu ñu ko defee rek problème assemblée bi dina régler mais bu ñu bàyyee nii nga xam ne yow nit mun nga di wax parce que nii nit ñi mu nee taxaw tey jii ñaaw ñaawlu li xew si Ami Njaay ñii bi. Mhm. mais bu dee gor lañ dëgg-dëgg. Mhm. bëgg yemale mais noonu lañu mais mag yi dafa jël. dàllam sànni ko mais mais mais mais imaginel mm-hmm. mais imaginel yow góor nga taxaw di wax ab femme jël koketam sànni la ko mm-hmm. mais bu dee jàmm am na foofu si heure yi yi ci topp kon nañu sant ku góor ki ci mm-hmm. maîtrise am nañ waxante dëgg lii am ni assemblée nañ ko arrêté ñay provoqué nañ leen ne yéenay <coughs> provoqué incident yi. alors mais bul xool dóor bi rek. Mhm. alors ma ma euh, doyan euh, doyen. ki euh, li mu wax Doudou li mu wax dañ ko koy nangul quand parce que. être un président de l'Assemblée nationale il faudrait avoir benn poigne te jox nañ ko prérogative yëpp pour mu stopper lii nii pourquoi lii nii am te moom mu koy seetaan. xam nga Assemblée nationale nag bon yàgg naa am ay gladiateurs. Mm. bon dégg naa Barthélemy Diaz wax. assemblée yëpp de effectivement dina am am na ay gradier boo rappelé wu kii honorable Doudou Wade mhm. bajoon na fi Aliou Sow mhm. l'actuel ministre de la culture culture mhm. bon kii tamit nu mu tudd le député Gallo ba de Louga bajoon na fi Aminata Mbengue Ndiaye bon Mbéri Sylla ak Sonko xeex nañ fi ku nekk di wax maa corriger sa morom. donc ça veut dire que gladia yi moom am na fi. ay saakat aussi am na fi. mais liy xeeñ fi mu toll nii neexut. neexut te aussi bu ñëpp doon lekk mëdd tamit lu tax mëdd dagal. effectivement. parce que yow dañ la tuddee honorable maanaam mooy ki ñu sargal. ki ñu sargal nag waroo def n'importe quoi. waroo dem n'importe u waroo wax n'importe quoi aussi. Mm, mm-hmm. donc dañu war a doon et ñu ne la yow yaay ndaw. teewal réew mi ci pencum askan wi. assemblée nationale donc da war a am ay comportement exemplaire malheureusement il dafa am ay ñoo xam ne ñiy singulariser jamono yi mooy ñi nga xam ne vraiment c'est la mauvaise graine. ñoo xam ne. sa vouloir coûte que coûte saaga lu ñu mun. clochardisé l'Assemblée nationale ak def lu ñaaw. yooyu am na ci opposition bi comme am na aussi du côté du pouvoir. mais loolu dañ ko war dagg. ni ñu koy daggee mooy il y a un cadre de référence qui est là qui nous unit tous qui unit tous les députés mooy le réglement intérieur. Mhm. règlement intérieur boobu dafa am ay articles yu ci nekk cent 139 articles la. Mhm. article yi c'est pour régler le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mhm. yow nag bu ñu la fa tegee nga tudd Amadou maam Diop. Mhm. sëñ bi wax dëgg yàlla na nga góorgóorlu ba fexe ba matal sa toogaay bi. surtout am nga ay règlement yoo benn benn benn boo xam ne. di nga ko mhm. teg am tu as des outils à ta disposition outils yooyu na nga ko utiliser pour mu mu mu nekk ku fareeg yow wala ku bañ a fareeg yow nga fexe ba maintenir l'ordre. parce que pour loolu aussi Assemblée nationale dafa doon war a doon. le creuset par excellence de la confrontation des idées mais c'est pas le creuset par excellence de l'académie des Miss soxlawuñ ko ah. bu dee loolu ko ñu organiser làmb l'académie des Miss boobu sax <laughs> doyen wax nga lu am solo ah. mm. ñaari confrontation yooyu benn bi lañ ciy xaar gis nañ ko ci quand même mm-hmm. euh, parce que tamit am na confrontation d'idées yu am solo yoo xam ne euh, ñu bëri yaakaaru nañ ne débat bi nu mu niveau bi nu mu relevé wu nii mm-hmm. duñu koon am ci quatorze législature bi mais mais heureusement que am nañ ko mm-hmm. mais dafa dem a dem ba yenn fee yi ndaw ndawaan ci gis moo dama dem ba muur li nga xam ne nii moom la est-ce que c'était pas une stratégie peut-être de camoufler les bonnes idées yi nga xam ne ñoo découlé des plénières waaw xam nga soxna Aïcha assemblée moom c'est un milieu éminemment politique mm-hmm. euh, lii euh, waa kër yoon di wax rek quand le pouvoir exécutif entre dans le prétoire par la porte la justice passe par la fenêtre mm-hmm. loolu ngay waxaat rek assemblée nationale quand l'exécutif entre dans le législatif les honorables tout ça il passe par la <laughs> fenêtre en fait c'est ce qui se c'est ce qui se passe euh, boo xoolee sax ni euh, les membres de l'exécutif jëlee en charge cette question qui n'intéresse que des député mhm. da xam ne y a une prégnance de l'exécutif euh, sur le législatif loolu yëpp nag dafay euh, dafay dikkaat ci enjeu yi xam nga mhm. assemblée axe programmatique rek lañ fa war a waxtaanee mhm. parce que le budget dafa sérieux sérieux boo xam ne ñi ko xam sax bariwut moo tax boo déggee ay député yoo xam ne il ne te parle pas de questions budgétaires mm. duñ la wax waxi axe programmatique du ñu xool les orientations du budget mm. duñ ko xool par rapport à la dette duñ ko calculer par rapport à la loi de finances rectificative qui va venir mm. ba mën a yee askan bi ci liñ leen présenté du ñu def lu dul nekk dans le dans dans les caniveaux mm-hmm. foofu foofu la ñuy ne te ñiñ ci seetlu euh, ay la yëwén député opposition bi. Mm. Euh, jàpp naa ni ay jàmbaar lañ. parce que ñu ngi poser ay problématiques yoo xam ne soxal na askan bi mais contexte bi ñu toll ni ma la ko junjee woon ca njalbeen nga mm. contexte boobu rek muy muy ñëwaat c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale les députés du pouvoir du ñu bëgg ñuy wax ci lii yee askan bi mm. ak li leen di xamal liñ leen li liñ leen def liñ leen di defal ci seen budget loolu tamit dafay indiwaat toujours friction parce que mhm. tu vois un groupe boo xam ne ñëpp ko seetlu tous les observateurs seetlu nañ ko euh, bi avant ministère de l'intérieur di ñëw ak ministère de la justice di ñëw ci la yëfi mel ni tulleeg màlle mais mhm. pourquoi l'intérieur et pourquoi la justice parce que tey ces deux départements yoo xam ne ben ils sont au cœur des difficultés du régime du président Macky ils donc bu fekkee ñooñu dañuy ñëw assemblée nationale ñële dañuy jàpp ne dañ koo war a lëmbaje dañ koo war a jaxase ba kenn du fa tala wax loo xam ne nii askan wi dinañ jàpp na ah ay la yëwén eh ñii kat lañ waroon doxee doxewuñ ko justice kat na mu waroon taxawee maanaam tëddee ndaaxaanaay taxawewu ko mhm. donc problème yooyu dañ koy bëgg di occulter dañ koy bëgg di nëbb waaw moo tax quand l'exécutif est dans le législatif mhm. maanaam euh, maanaam pënd lay doon woo xam ne ah. balaa wuri kenn du xam kañ la mhm. mais ñoom ñëpp am nañu mission boo xam ne nii mooy mission wu expliquer sénégalais yi mhm. budget bi ñu leen indil lan la parce que ils ont un devoir de restitution Tout à le député il a un devoir de restitution léegi nag bu fekkee en plénière mënul def restitution kañ lay def restitution ba askan bi di xam la fa xew. Mhm. déjà euh, niñ ko couvrir couverture médiatique bi euh, d'autres éléments extérieurs yoo xam ne maanaam écarté nañu la presse écarté nañ beaucoup d'observateurs. Mm sur l'essence même. de ce budget qui a été présenté au Sénégal donc dañuy wax ay ay ay débat yoo xam ne mm-hmm. on nous tire vers d'autres débats périphériques yoo xam ne mm-hmm. ni peut-être du amal askan bi njëriñ loolu nag ça mm-hmm. au profit du du place alors il nous reste euh, euh, quelques minutes ah mais Doudou xam naa man ak yow moom naan nañ fast track bi mm. pour parce que il faut ñu wax ci ci ci ci ci arrestation tous azimuts yi nga xam ne euh, gis nañ ko très récemment li koy firndeel moom mooy la dernière arrestation en date de Fadilou Keita mi nga xam bokk ci euh, Pastef euh, gis nañ ne que activistes yi ñu ngi leen di jàpp pare nañ ci woy euh, opposant yi tey ñu ngi ci ki nga xam ne moo gën a jege peut-être ki ñu woy opposant bi gën a mag ci ci dëkk bi muy kay Keita la mu wax peut-être mënuñ ci jaaraat mais est-ce que graaw na graaw boo xam ne jaroon nañu koy teg loxo. cest à moom bu demee rek Ahmed Suzanne Camara da ko war a fekk. waaw ah, parce que daanaka wax ji benn la de. waaw ma ne ko daanaka wax ji benn de mooy li may wax chaque fois rek. man pourquoi. suñu justice bi tëriwul njaaxaanaay mm-hmm. pourquoi ñu am deux sortes de sénégalais ba pare am fii ñu am nijaay ak bàjjen ak ñu amul nijaay ak bàjjen si xam nga c'est ça le problème c'est-à-dire mënuñoo nekk si benn dëkk boo xam ne tout est politisé yow bu nekkee si xam nga damay chaque jour di rappeler mm-hmm. lay wàdd tëj na Farba Senghor nga xam ne il le portait dans son cœur mm-hmm. ancien ministre mu déchoir ko de ses fonctions tëj ko. Mhm. tëj na Modibo Diop. un responsable libéral. Mhm. tëj na Latif Coulibaly. ñoom ñëpp ci ci moom lañ bokkoon. bay la woon tëj na bay la woon aussi. kat Macky sous son règne nga xam ne léegi mu tolloo rek ay at mag kii. Ablaye Wade Ablaye Wade mosul tëj benn ñoñam. ki ñu fi jàpp flagrant délit muy Bougazelli sax fexe na ba génne ko def ko liberté provisoire mais da ngay gis fii ay wax yu graaw mm. bu ñu nee république toute la presse mm-hmm. dans son ensemble mm-hmm. wax na fi que ni Farba Ngom nekk na dans une manifestation publique toroxal un préfet mm-hmm. il n'a même pas été convoqué léegi ñooñu ñooy taxawaat tourner ne la il faut respecter les institutions de la république mm -hmm. mais xanaa institution de la république opposant bi kese moom moo war a respecter institution de la république ñoom waruñu koo respecter mhm. alors ci kàddu yooyu sax nga xamante ni jib na du rek euh, mën nañ ne euh, Fadilou Keita moo def poste mais am na ñoo xam ne dañoo taxaw wax ci seeni live ñi wax ci ay plateau de télévision àdduna bi leen dégg ku ci mel ni euh, Bah Diakhaté ak Ahmed Suzanne Camara ñoom ñaar ñëpp sax famille Didier Badji jot nañ leen a déposer ay plainte gàll ko seen ndax dañu ne que dama yàlla baal te jege humilité man laa xaawi seen orma léegi kàddu yooyu noonu ñu nga xam ne ni jib na te ñooñu jàpp ne peut-être entre guillemets ñu far ak ak nguur ki euh, vis-à-vis nag est-ce que du kumba am ndey kumba amul ndey bi nga xam ne dudd mu ko wax léegi léegi. en tout cas booy xool histoire justice bi ak yeneen segment yi surtout opposition tey mën nga sa xel mën naa tey parce que sama benn mbokk fii wax na fi sama mbokk xaal pulaar wax na fi ne troisième mandat bi nañ ko imposer. su buñ ko imposé wul tamit ku mu nangu ñu jër jaasi amaa na fi sam beneen mbokk alpulaar Kumba Ba xa saaga na fi olof yi mu jël fenn ma nga bitim réew di di lijjanti boppam maxtaar kii nu mu tudd si maxtaar Diop député Touba bi keroog njombe bu rëy la fi wax mhm. nee na minis ministre de l'intérieur ku mu dugal ci géej. <laughs> waaw dugal ci géej. am na ku fi ne am na ku dem leen ngeen taal Walfadjri waaw xam nga yooyu nit ku vraiment buñ tollee ci réew moom boo xam ne dafay mel ni anormalité bi moo doon la norme parce que mu normal yooyu kenn waru ko fa moo ko fa waxee aussi dañ war a téye mais malheureusement dans ce pays là li ñu li ñu seetlu mooy justice bi symbole bi mu am mooy balance balance ñaari critère la ñoo ko laal la justesse et l'équilibre mais des fois day mel ni dafa am fu muy fu muy dëgërale ak fu muy yolomale mhm. finalement yow yow citoyen lambda bi sax dooto am confiance en ta justice te justice moom boo amul confiance ça veut dire que le pilier de la République est en train de s'affaisser donc sur ce plan là vraiment mhm. il a mhm. lieu de se ressaisir quoi pour que ñu xam ne nu sommes dans une démocratie et la démocratie c'est c'est la justesse c'est la transparence et ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ko bokk. alors ah, euh, sànq yaa ngi doon wax ne que dafa am benn sentiment de peur boo xam ne day animé sax bu fekkente da ngay liggéey ci journalisme. Mm. et là ça va à crescendo on a cette impression la tendance bi mu ngi gën di ñëw ñu ngi gën di teg ay loxo ay doomi aadama après ak qui la à qui tour. waaw mooy situation de de peur bi nga xam ne nii moom la ñu nekk rek xam nga euh, maanaam réew bu ñu la ko joxee. Mm-hmm. dañ la ko jox ak responsabilité. Mm-hmm. donc ba nga xam ne segment yi nga xam ne ñoo constitué réew mi yëpp. Mhm. dañ leen war a taxawu ba nga xam ne ku ci nekk sa liggéey di nga ko def. Mhm. mais tey fi mu toll nii euh, ñi ñu waroon a procureur ñi mu waroon a woo. Mhm. bari na lool ñu bokk ci nguur gi ak ñu bokk ci opposition bi. bu fekkee la rek pour woote. ñi mu waroon woo bari na li bari na trop cest à euh, tey ku ci mel ni euh, suñu nijaay Moustapha Diakhaté. tey procureur warul woon taxaw ba. famille député yooyu di porter plainte jëmbale ci moom parce que li mu wax tamit euh, dafa dafa dafa doy waar mm-hmm. maanaam nit maanaam kenn du kenn du jël loo xam ne nii pour ñu teg ko ko pour jël bakkenam la mm-hmm. parce que bakken dafa fort mm-hmm. donc euh, situation boobu dafa lay wan que ne euh, nous dans une ambiance délétère ba nga xam ne nii même politiciens yi sax amatuñu repère amuñ bu demee ba acteur politique yi amatuñu repère. ni wax wax yoo xam ne nërmeel na réew. mais waxatuma laak ñi des ci askan bi ñooñu fan lañ jëm. donc man jàpp naa ni yaa a un y problème très grave d'éducation politique et en général. boo xam ne nii da nga koy gis ci lii xew tey ci assemblée nationale. ak ci fépp ci bépp bànqaasu réew mi da ngay xam ne euh, dëgg-dëgg gaa yi bënn bi ñu waroon a bënn. Euh, ci ci ci ci yar ci xam-xam ak ci teey ak ci xam fi ngay teg sa tànk dafa mel ni dafa dafa dafa dafa dafa daanu dafa mm-hmm. dem mm-hmm. donc problème boobu euh, defe naa ni war nañu taxawaat ñu xool ko mm-hmm. maanaam euh, wàllu wàllu yar ak teggin ak respecter sa nawle yooyu yëpp dañ koo salfaañee te dara warulu ko lu dul poñatuk àdduna lu dul xëccoo parce que on récompense Euh, par des situations stationnaires mhm. lii rek lay jur di nga gis koo xam ne station bi mu nekk mhm. wala biñ ko dig mhm. moo tax muy wax lu taalum réew waaye loolu buñ ko seetee ñu bari war nañoo delloo ci seen xel rawatina ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñooy am ñoom ñooy homme politique yi. Mm-hmm. une récompense stationnaire. warul tax nga taal réew mi. d'accord jërëjëf euh, euh, euh, Abdoulaye Diop sunu naataangoo la fàttali ne tey moo nekkoon gan ci édition du soir nekk directeur de publication bu journal bi la di quotidien 24 heures c'est vraiment c'était vraiment un plaisir de vous recevoir jaajëfal également doyen Mademba Hamata Dia toujours disponible pour Walf bu directeur de publication directeur de publication bu direct euh, bu euh, euh, direct news di jéggalu di jaajëfal bu bu bu baax a baax. Doudou Coulibaly yow moom on se donne rendez-vous vendredi prochain n'est-ce pas voilà si ay yóbbalu Doudou Coulibaly topp geeka teewlu gi lii la woon li indi loon tey ci édition du soir yéen ci anam gi gën di jaajëfal ñu jàppoon ci liggéey bi yëpp euh, toute l'équipe technique et rédactionnelle Assane la coordination et la réalisation jërë ngeen jëf mbokk yi jaa ngeen di leen jox dig dajee euh, euh, altine si beneen équipe édition du léegi-léegi retrouvez le journal de 20h avec Hadisila bien à